baaxoo di teewlu xibaaru bamb dal leen ak jàmm ci seen tënkum xabaaru bés bi. commune bu Ribo Escale ci lëkkuloo bi mu am ak fonds d'entretien routier muy FERA daal dinay jot financement ngir defaraat yoon bi nga xam ne moo nekk ci diggante Touba Alimende ak Daaru wolo looloo tax nag ñoom municipalité bi ñu daal di lancé luy tubaab du wax appel d'offre maanaam woo ñi nga xam ne. Euh, seen xam-xam ak seen xarañteef euh, yëngu na ci euh, domaine boobu maanaam defaraat yoon bi ñu daal di ñëw daal di joxe seen dossier ngir mën a koo gañe ba mën a defaraat li nga xam ne mooy yoon boobu Euh, ñoom nag euh, ñu ngi wax ne candidat yëpp daal nañ leen di ibbil seen bunt euh, ngir ku ci bëgg dugal say dossier nga daal di koy yóbbu foofu ca commune bu Ribo Escale wala nga daal di leen contacter ci numéro yi bu fekkee ne wuyoo nga ci li nga xam ne moom lañ daal di bëgg ci ñi nga xam ne ñoo ko war a mën a defar. gannaaw loolu ñaar ci conseil constitutionnel tey lañ am yaakaar ne war na mën a àddu ci recours yi nga xam ne. daal dinañ ko fay dugal ñu mën cee lim bu mandataire national bu euh, Yewwi Askan Wi di Déthié Fall ak Bougane Gueye Dany bi nga xam ne moo jiite gëm sa bopp ñoom ñëpp daal dinañ fay dugal ay recours ci ñaawlu li nga xam ne mooy yenn list yi ñu rejeté te ñoom jàpp nañ ne jaaru si yoon ak ëppal bi nga xam ne ak ñàkk euh, respecté bi nga xam ne Benno Bokk Yaakaar tamit daal dina koy ñàkk respecté rawatina ci pare yi euh, ngir ñu daal di neenal li nga xam ne mooy seen liste nationale buñ sikkandikoo si euh, Sud Quotidien nag euh, gis nañ ne euh, tey conseil constitutionnel dina ko dina si àddu ngir wax fan la dëgg gi féete waaye ci nga xam ne tamit ñoo nekk ci yoon ñu daal di leen koy jox loolu tamit day tax li nga xam ne mooy direction général des élections ñu daal di àddu ci irrecevabilité maanaam ñàkk baax bi nga xam ne yenn candidature yi ñàkk ñàkk nañ ko baax gannaaw loolu ñu àddu ci euh, nomination bi nga xam ne daal dinañ koy def muy inter muy sénégalais boobu nekk euh, France di Pam Ndiaye gannaaw ba nga xamee ne euh, daal dinañ koy denk ministère de l' éducation fële ca France gis nañ nag yenn autorités françaises yi ñu mën cee lim Marine Le Pen ak Zemmour daal dinañ di kàddu di koy ñaawlu bu baax jàpp nañ ne moom dafay dooleel ñi nga xam ne ñooy minorités yi ñu gën cee ràññee ñi nga xam ne mooy nit ku ñuul yi. ki nga xam ne nag moo ñëwoon euh, deuxième ci élection euh, française yi ñu génn di Marine Le Pen jàpp na ne lii euh, président Emmanuel Macron wala gouvernement bi daf bu dëgg du yoon te loolu day bokk ci li nga xam ne mooy yàq ak idéologie bi nga xam ne ñoom ndaw France dañ ko daan incarné nomination boobu ñu nominé Pape Ndiaye daal dina doon na loo xam ne lu du exemple boo xam ne dina mën a njëriñ doomu français ba tax na mu ngi ñaan ñu daal di neenal wala boog dakkal li nga xam ne mooy ndomba tànk boobu. gannaaw loolu ñaar si wàllu tàggat yaram ak euh, Bamba Dieng nga xam ne mu ngi football fële ca Marseille gis nañ ne euh, mat wàccaay match bi nga xam ne war nañ ko amal ni ki tey si entraînement bi nga xam ne amaloon nañ ko démb ak juma ji gis nañ ne dafa génn euh, ci blessure te blessure bi nag ñu ngi ko mën a xayma ci icie janvier bi gannaaw loolu tamit ñuy njortu rek ne CAN bi nga xam ne 2023 lay am te Sénégal war a dalal beneen